waaye ñoo ngi déparé woon Mbour. Hmm. suñu gaal defoon na trois cent personnes. trois cent personnes. bu demee ba am cinquième jour yooyu. Hmm. am na benn paa bu nekkoon si gaal gi. Hmm. xëy na ñii ñi ma bokkaloon gaal suñu ma déggee di nga xam ne li may wax dëgg la. paa moo ñu wax ni man yéen du ngeen teer. du ngeen teer. waaw parce war a fay bor. li ko moo ni jàppee yeew ko nag moom. di ko ak yooyu noonu. bi paa dee la jàmm jeex si gaal gi. sama loxo bii nga gis wallaahi dañ ma see mal. ëpp bii ngay gis. ci biir ci ci biir ci biir gaal ci biir gaal gi mu ne lekk bi jeex na naan gi jeex na. Mhm. dañuy toog rek wàkkiru suñ borom ku dee ñu sànni. Mhm. ñii di dee ñuy sànni. ci mujjee gaañ si ñun ak fajaral gaal ñu seex. ñu wàññeeku parce que biñ teeree Maroc biñ waxee maam ñi dee ñun ñëpp trois cent personnes la. ñun li ma dañ nii yëpp bu ma gisaatoon gaal bàcc alxuraan damay def. ëpp def sëñ bi. billahi dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw jërë ngeen jëf mbokki mbokki internet yi bàyyi xel 5M TV Sénégal info 221 nuyu nañ leen rafetlu ni ñu ni ngeen àndee ñun saasu ne tey ñu ñëw euh, seet si jëmm joo xam ne euh, mën naa am kanamam miinu leen ko lool ci li nga xam ne moom moo di internet bi mais situation tax tey ñu ñëw déplacé wu fekk ko këram fas yéene waxtaan ak moom ku nekk xam na ne jamono ji fi mu toll gis nañ mbëkk mi muy li ñuy wax immigration clandestine ni mu bëree ñii ñi ngi jar ci yoonu suuf bi ñii di jaar ci li nga xam ne moom moo di yoonu gaal gi fan yi nag gis nañ gaal gi ni nga xamee ñu ngi koy duggee biir Espagne ba nga xam ni gouvernement espagnol bi amoon nañ ay dogal yu ñu jël ngir ñeel li nga xam ne moom moo di immigration clandestine jëm ji njaakaar loolu bokk ci ñi nga xam ne jëlool nañ gaal gi ngir dem di seen wërsëg fële nga xam ne moom moo di ca Espagne ak dellu si waatam fii ci baa nag daañu ko waxtaanee balaa ñu gën a guddal waxtaan wi nañ ko bàyyi mu nuyoo Serigne Mbacké Diagne ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog internet ñu leen di jaajëfal di jaajëfal waa. 5M TV 5M liggéey bu rafet ngeen def ci réew. Mhm. nuyu waa Sénégal yëpp. Mhm. di leen jaajëfal. Serigne ginnaaw bi nga nuyoo ñu dugg si ci li nga xam ne moom moo di biir waxtaan bi. sëñ Mbàkke nga bokk ci jeunes yi nga xam ni jamono yi ñu toll jëloon ngeen li nga xam ne moom moo di gaal gi. Hmm. dem fa nga xam ni wutali fa nga xam ne moom moo di Espagne ngir dabu ji fa li nga xam ne moom moo di seen wërsëg. Hmm. est-ce que mën nga ñëw ñëwaatal ci départ bi ak ndaka ngeen ñaata personne ngeen woon ak fan ngeen déparé woon jël gaal gi wutali fi nga xam ne moom moo di Espagne. waa ñoo ngi déparé woon Mbour. Hmm. suñu gaal gi na trois cent personnes. trois cent personnes. trois cent personnes lan woon. Mm-hmm. man ak ñi cinq lan woon. cinq personnes. cinq personnes waaw. bokk mais benn koñ bi ngeen bàyyeekoo woon. ñoo bokk benn koñ bu ñu bàyyeekoo woon. ndax mën nga ñëw ñëwaatal ci départ bi naka ngeen doon organiser woo ba fexe bay départ te autorités yi wala gouvernement bi yëgu leen ngeen fexe ba nekk dajaloo nekk benn trois cent personnes yéen ñëpp ngeen booloo yëg ci benn gaal wutali fi nga xam ne moom moo di Espagne maanaam mbir mi nan ngeen doon fexe ba dajaloo ci seen biir. pour mën a dem. waaw xam nga nag trois cent personnes yëpp duñ bokk fu nekk. effectivement. ku nekk da nga yor say client kenn ku nekk ak fa ngay mm-hmm. ki ñu yoroon këram la nekkoon. Mm-hmm. ñun biñ ne suba la tabaski lan waroon a départ. Mm-hmm. tabaski bi jàll. mais dañ ñëwoon géej gi dafa ngelaw. ñun foofu lan tabaskee mbuur. ah mbuur ngeen tabaskee ci kër waa ji. a maanaam da yéen a demoon uniquement dajaloo ci fi nga xam ne moom moo di kër waa nga xam ne moom moo leen encaissé ngir nombre bi mën a mat wala da doon xaar ngir mën a am information yoo xam ni jàpp ngeen di ngeen mën a jaar ci bi àggatu du ngeen am jafe-jafe. boobu nombre bi gi la waxoon moo neexut. Hmm, moo waraloon ngeen toog foofu. moo waraloon ñu toog di xaar pour mu daal. ñu dem. toog foofu di xaar. waaw euh, ndax tey jii yéen avant ngeen di dem xamoon ngeen. Euh, gaal gi nga xam ne moom ngeen waroon a jël ngir gaal euh, ndax maanaam jotoon ngeen a gis gaal gi ngeen waroon a yéeg ngir mën a xam ndax gaal gi tey ci gisin war naa mën a àgg Espagne wala ndax gaal gi tey maanaam euh, am nay matuwaay yoo xam ne wala tey jii nii liggéey nañ ko liggéey boo xam ne nekkul gaal gu màgget goo xam ne si nii njortu ngeen ni war ngeen cee mën a dem Espagne wala da ngeen a toog ba jour rek ñu ne leen gaal gi mu leen gaal gi moom gisuñu ko dañoo toog ba bi jot rek. Hmm. ñu jël ñu ci gaal yi ndaw yi. Hmm. yóbbu ñu biir gu mag fi mu doon jógee Kafandin la jógee woon. Hmm. def nañ deux jours ci ndox mi doo gis gaal gu mag gaal gu mag dafa ñoo réeroon. am gaal gu mag daal leen a jiitu ci biir géej gi. nga xam ne dafa gaal yu ndaw yoo xam ne ñoom ñoo leen doon yaale di leen yóbbu ci. gaal yóbbu mag yi réer na leen deux jours ñoom ñun ñu soog a dem si gaal gu mag maanaam gaal gu mag yi dañoo réeroo woon ak gaal gu mag waaw avant ñu koy gis ci ndox mi. avant ñu koy gis ci ndox mi waaw. d'accord d'accord man ndax man nga ñoo ñëwaatal maanaam départ bi maanaam dund gi préparation bi naka la demee woon foofu ndax tey jii jëloon ngeen seen matuwaay ci yu bëri ndax euh, ku ne xam na ni trois cent personnes ay caaxaan. Ah, ba pare tamit euh, ku ne xam na ni gën fii ak Espagne nekkut gàttul yoo gàtt bu ñu koy dawee benn fan ñaari fan ku ne xam na ni ñu ci bëri gën kaa gàtt danañ ko daw cinq jours. Euh, seen préparation ci wàllum dund gi ak ci wàllum matuwaay yi nga xam ne war ngeen koo jël nan la fa demee woon. am bi bay wàcc pour dem maa ngi nuyu sax bu nekk mati. Mm-hmm. moo ma loon ay lekk defal ma ko ci siwo jox ma ko mm-hmm. ba dem ci gaal gu mag gi foofu sax ay jafe-jafe xawoon naam am parce que bi ndikkee gaal gu mag gi mm-hmm. ñun fekk si gaal gu mag gi ñun si gaal gi mm-hmm. mais fekk na benn machine bi waroon a yóbbu gaal gi ñaar lay doon ëpp doole si ñun la nekkoon gaal gu ndaw bi ngeen nekkoon waaw ñun leen ñun suñu yéegul machine bu du yéeg ci leen nekk di xëccoonte di xëccoonte yooyu ba ñoom ñu ñëw ci suñu gaal gi pour bëgg a jël machine bi dem biñ tafee gaal gu mag gi lañ Mhm. ci la ñun am ci ñu cëppeelu dugg si biir gaal gu mag gi. d'accord moo moo waral moo waral surcharge bi daal moom. wa ñun si gaal gu mag gi si am na ñeneen ñu ci wàññeeku. Mhm. pour ñu bisiwaat. Mhm. ndax ñoom wóolootuñu gaal gi nee na. maanaam ñëpp ñëpp di mujj maanaam nombre bi waroon dem yëpp mujj ñu dem. am na ñu am na ñu wàññeeku. am na ñu wàññeeku bi ñu wàññeeku parce que biñ teeree Maroc biñ waxee maam ñi dee ñun ñëpp trois cent personnes la. d'accord yow sëñ bi eh, nga bokkoon ci ñi nga xam ni yéegoon ngeen ca gaal googu wutali ci li nga xam ne moom moo di Espagne départ bi ndax mën ngeen cee dellu si waatal muy première jour bi ak deuxième jour bi nan ngeen doon dundee biir ndox mi ak nombre bu tolloog trois cent personnes ci benn gaal. waaw biñ ñëwee départ na ci départ biñ départ moom amoon na yaakaar moom. maanaam njortoon nga ni daal di ngeen dugg. njortoon naa dinañ àgg moom te biñ ba toll génn ay ndar ba murtani. Hmm. ci la ñu ngelaw dab. commencé dund ay jafe-jafe foofu. ci premier amu ma woon loolu ci ban jour bi la. yaakaar naa ci troisième jour. troisième jour bi la leen ngelaw la ngelaw dab. ngelaw li dab waaw. d'accord xanaa par exemple ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon gaal gi ñi ñuy woowee li nga xam ne moom moo di ay capitaine xanaa dañoo nekkul ñoo xam ni dañoo yàgg yàgguñ ci géej wala wala lan mooy problème bi ba tey jii ñu départ jour boo xam ni ngelaw dana leen dab ci yoon bi ba di leen mën a faagaagal. xawma ni ba ma doon doon ay professionnel xawma ah mais capitaine daal ndar lañ ko jëlee woon moom ah ndar lañ jëlee capitaine bi waaw moom moo yoroon gaal gi ñaata capitaine ñoo nekkoon ci gaal gi benn wala ñaar ndax da gis nañ d'ailleurs parfois yenn ci gaal yoo xam ni capitaine yi ñii dañuy dawal bëccëg gi guddi gi ñii ñooy yor gaal gi di dawal noonu la ñaata capitaine ñoo nekkoon ci biir gaal du benn du ñaar moom hmm, bari woon nañ ci bari woon nañ yaakaar naa buñ doonul quatre cinq la ama capitaine ak laxkat yi doon boobu d'accord d'accord parfois ñi nga xam ne dañuy dem ci gaal gi des fois dañuy wax ni biir géej bu guddi jotee dañuy gis ay yenn nit yoo xam ni dañuy changer comportement wala ñoo xam ni bu leen géej gi demee ba jàpp dañuy wax ay kàddu yu nekk ndax yooyu doon ngeen ko faral di gis ci ci seen biir gaal gi. sama loxo bii nga gis wallaahi dañ ma see mat. ëpp naa def de. bii gis. ci biir ci biir ci biir ci gaal gi. ci biir gaal gi. ah loolu de yéeme na. wallaahi gaal moom lépp lu la si wax rek. Hmm. am na ci loo xamante ne dañ kaa bàyyi xëy na nag boo toogee fii wax dañ naan ñi. boo ñi nga xam ne dundaguñ ko. waaw dundaguñ ko dañ naan la ñuy. dañuy wax ak looy wax di bàyyi rek la demeewul noonu. man avant may dem lii dama ko daan seetaan ni ñi di ko wax. est-ce que yow avant ngay départ Touba di wutali li nga xam ne moom moo di Mbour bay jël gaal gi est-ce que tamit li nga xam ni yenn Sénégalais yi baaxoon nañ di ko def muy fagaru wala wuti ay ñaan wala dem koo xam ne dina xoolal sa yoon bi est ce que yooyu yëpp yow kon jotoon na la cee fekk avant ngay départ. waaw wax doon naa ko xool moom dem naa ci ay ñaari pas ba ñett. Hmm. et troisième pas dem li ñu waxoon mooy bu ngeen sa bu ma sañoon ngeen toog su ma yoroon seen numéro yi mbokk. Hmm. dama leen di woo pour ngeen toog. Hmm. mais yeneen boo yi ma àndul. yoon yoon yàlla moo ko yor. la euh, ginnaaw bi nga ñu dellu si waat tuuti rek ci biir gaal gi ndax war nga ma fi léegi sa loxo ne dañ la cee matt loolu nan ngeen ko doon dundee ci biir gaal gi moom ay guddi yi lay doon wala ci bëccëg gi la am ay nit yoo xam ne dañuy changer comportement wala di changer réaction ci biir gaal gi wala ñu indi coow yoo xam ne si nii dina waral ay xëccoo di am ci biir gaal gi naka la fa doon demee. lii kooku si guddi gi la woon. Hmm, guddi gi la. si guddi la woon. ñaar ñaan ab séeréer la woon xaw ma sax. maa ngi hmm. tooñ séeréer la. ci boori ñaata fan. boobu yaakaar naa ñu ngi am quatre jours. quatre jours ci biir waaw. ñu am quatre jours ci biir ndox ci biir ndox mi nee ma sànq avant ñuy door émission bi seen gaal gi dafa dem ba jamono gaal gi riir waaye tamit essence bi jeex li nga xam ne moom moo di dund gi jeex ndax mën nga ñu ñëwaatal ci loolu lan moo waral réeru gaal gi waaye ngeen ci digg ba dund geeg li nga xam ne moom moo di essence bi mujjee jeex. waaw xam nga bi ñu ba am cinquième jour. Mhm. si lan wax ne jëneeru Espagne bi mi ngi ne soreetul. Mhm. mais boobu li ñu dese si ay bureau essence bariwul. Hmm. yaa nga naa trois la xawma. trois bureau waaw. après si la capitaine wax ne li des si essence mënuñoo teeral Espagne. Hmm. léegi nañ jéem a teer fii dëkku naari Maroc wala fenn. Maroc mais ñi ëpp si gaal gi ñoo ne gaal gi du teer day dem. maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci biir gaal gi daal ci gàttal gisuñu woon lenn lu dul àgg li nga xam ne moom moo di. Espagne waaw d'accord. ni gaal gi du teer day dem. Hmm. Espagne mais du départ. ñi ëppoon ci gaal gi ñoo nangoon lool ñi si gënoon néew. Hmm. comme sama classe yi moom d'accord woon nañ pour ñu dëpp d'accord woon nañ ñu dëpp waaw hmm. léegi bi nga xamee ni xëccoo am na li ëpp ci mbooloo mi ne gaal gi gaal gi teer te ñu bëri xam ni li leen dese ci bureau essence njortoo leen ni war na leen mën a àggale fa nga xam ne moom moo di Îles des Canaries yi naka ngeen doon dundee kon ci li nga xam ne moom moo leen dese woon ci carburant waaye li leen dese woon ci dund fan la carburant bi jeexee ba mu leer leen mënatoo leen dem waaye tam bëgg nañ ay leeral ci fan ngeen àgg ba nga xam ne seen dund gi jeex na ba amatoo leen lu ngeen dundee. waaw bi bi di jeex moom. Hmm. boobu maa ngay bàyyi xel boobu ñu ma que kenn gaañoo ko si mais boobu na. Hmm. Ah, maanaam lekk a jeex. boobu lekk gi jeexagul ah, mais naan bi jeex na. Ah, nga xam ne da lekk rek. doo naan waaw. ñu sonn lool. Hmm. ñenn ñi tëdd ci suuf. ba tiim leen. Mm, d'accord. biñ demee ba am cinquième jour yooyu. Mm-hmm. am na benn paa bu nekkoon si gaal gi. Mm-hmm. xëy na ñii ma bokkaloon gaal suñu ma déggee dina xam ne li may wax dëgg la. Mm-hmm. paa ñu wax ni man yéen du ngeen teer. du ngeen teer. waaw mm, parce que man damaa war a fay bor. paa bi ci biir gaal gi la newoon. o moom moo ne moom dafa war a fay bor. waaw. fay bor bi ci ci naka expliqué wu leen maanaam fay bor bi ci naka la war a fayee bor wala dañ daf leen ko wax rek. loolu daal moom la wax ma dégg. ah baat rek la wax. waaw bi ko moo ni jàppee yeew ko nag moom. di mhm. ko commencé dóor ak yooyu noonu. bi mhm. paa bi dee la jàmm jeex si gaal. Ah, paa bi daal maanaam dañ koo jàpp yeewu ko commencé koo fitnaal ñu sànni ko ci ndox mi. waaw. bu sànnee nag si jàmm jeex ci gaal. Hmm, bi ko sànnee lan moo xew ci biir gaal gi après. taw na taw bu metti a ah, taw da leen fekk ci biir ci yoon bi. ci biir waaw. am ndox mi dafa mujj woon nekk. ci biir gaal gi ndox nekk si biir gaal gi ñu koy as. ngeen koy génne. boobu biron instant bi ci desoon dafa bënn tuur ah lu illallah na léegi biron bi jeexee ci la capitaine dafa daa ne maanaam lu war yóbbu gaal gi instant bi moom jeex na mm-hmm. lekk kese moo des te buñ ci lekk mm-hmm. bu subaa duñ lekk mm-hmm. naan bi moom jeex na ñu lekk ci miskin mu jeex ci la toogaat ci yenu gaal gi noonu dafa daan essence bi jeex na lekk gi jeex na naan gi jeex na léegi li fi sës mooy ñu bàyyi gaal gi mu dem bi lekk gi jeexee naan gi jeex essence bi jeex amatoo leen benn pexe lan moo nekkoon tey jii nii seen réaction ci li nga xam ne moom moo di biir ginnaaw ba nga xamee ni seen lekk jeex na naan bi jeex waaye tamit carburant bi nga xam ni tey moo leen war a jàllale moom it na lan moo nekkoon réaction ñi nga xam ne ñoom ñoo desoon ci gaal gi. métti woon na moom wax dëgg parce que man boobu sama xarit yi ma àndoon sax. Mm-hmm. kenn gi moo si njëkk a gaañ moom mais ki njëkk gaañ dafa ko doon si ndox a ah, dafa dafa wadd ci ndox mi. dafa ndox laay la tuddoon mu des kaat. maanaam lu ko waddal ci ndox mi dafa amoon ay xëccoo ci biir gaal gi wala dafa dem ba lottu wala lan moo ko waddal ci biir ndox mi lan moo. dafa déniré rek dugg si biir ndox mi. duggee ci biir ndox mi amul yenn mool yu jéem a def réaction. amul kenn ku ko jéem a jël ñu bàyyi gaal gi di dem. Mhm. boobu sax gaal gi dawatul parce que boobu essence bi jeex am da doon ci biir ndox mi da doon joowal boppam noonu di dem rek léegi mu ne lekk bi jeex na naan ngi jeex na hmm. ñi toog rek wàkkiru suñ borom ku dee ñu sànni hmm. ñii di dee ñuy sànni ki mujjee gaañ si ñun ak fajaral gaañ bi seex hmm, ñoom lan moo leen doon rey xiif bu metti wala xiif ak mar xiif ak mar te doowu leen naan ci li nga xam ne moom moo di ndoxu géej bi ndax gis nañ ñoo xam ne d'ailleurs bu seen lekk jeexee dañ leen di gis parfois ñi naan ci li nga xam ne moom moo di ndoxu géej bi wala ndoxu géej bi tooloon na foo xam ne mënoo leen koo na naan. ndox moom weexoon na weex goo xam wax dëgg man moom doon naa si naan par benn góob laa si doon naan. Hmm. mais am ñoo xam mënuñu ko war a naan parce que weexaay bi nu weex. ñu bari loolu moo leen gàllankoor. Hmm. waaw nga ñëwaatal ñu tey ci ndox mi bi mu jeexee lekk gi jeex seen essence jeex nit ñi commencé di gaañu benn benn ñu leen di sànni euh, situation bi naka la demee ba tey ñi nekkoon ci gaal gi yëpp mennum yow yaa ci mucc ndax mën nga ñoo di kaatal ci jamono bi nga xamee ni lekk bi jeex na lan tey moo la jëlee foofu nga nekkoon nga xam ni tey mën nañ ne ñàqare fekkoon na la fa ba tey nga dellusiwaat fii jaakaarloog internet yi di waxtaan ak ñoom jaar-jaar bi nga xam ne jot nga koo lekk bi jeexee naan bi jeex essence bi jeex xam nga gaal moom day demal boppam rek. Mm-hmm. fu ngelaw li am foofu lay aw. Mm-hmm. maa ngi fàttaliku yaakaar na benn bato. Mm-hmm. bato bi xaw ma la jógoon xaw ma daal. moo ñu fekk foofu noonu. bateau bateau de pêche la wala bateau wala wala. bateau bu mag la ah bateau bateau bateau yu mag yi la. waaw d'accord bateau bëggoon nañoo taf sax mais mënuñoo taf. Hmm. parce que suñuy jéggi gaal bi day puus. waaw waaw gaal bu mag bi ndaw gaal bi day ram. ay deux heures du matin. Hmm. fa la di ñu niit ñu niit. Hmm. ba sept heures. bi bi bi bateau bu mag bi egg si boobu yéen a ngi ñaar ñaari des ci gaal bi. bu ay deux cent moo des. deux cent personnes. waaw yeggaleel ci ñëwaatal ñu ci bato bu mag bi deux heures du bi nga xamee ni pare woon na pour sowee leen boobu mi ngi ñëw pour bëgg jéem ñoo taf mais mënuñoo taf parce que mm. suñu jegee suñu gaal bi day puus amuloon tey ay yenn gilet de sauvetage yoo xam ne doon na leen ko jox ngir ngeen mën a fagaru wala mu leen sànni buum yoo xam ne dina leen mën a sauver wala non non moom jege wuñu comme jege yooyu noonu ah d'accord distance la woon waaw d'accord moom moo fa nekk di ñu nit di ñu nit ba sept heures. Mhm. bi sept heures jotee si la marinu naari ñëw. ah marinu Maroc bi. marinu Maroc bi waaw. d'accord xanaa kon ñoom dañu dañoo contacter marinu Maroc bi. xam naa ñoom ñoo leen woo. parce que ay sept heures yooyu si fi leen ñëw indi seen gaali ndaw yi. Mhm. bi pour ñëw di ñu jël si gaal ndaw di ñu yóbbu ci marine. di leen yóbbu waaw première voyage. Mhm. bi demee deuxième voyage bi mu ñëwee. si laa dem man. deuxième voyage bi nga bokk. waaw. bi mu bi di taf booy. diggante bi nekkee woon ak ñoom sóoreewu mm-hmm. booy bi nga commencé saxatoo mm-hmm. dafa arrière gaal daal ne ku mën a fay da ñëw ah, foofu tam am na si ñu bari ñoo xamuñ si lan dee ci lañ ci lañ dee ci lañ dee waaw ñu a fay nga agsi ñi nga àndaloon wax nga ni am na ci koo xam ni dafa daanu ci biir ndox bi moment bi nga xam ne marino Maroc bi mi ngi leen di Chelsea boobu ñi àndaloon ñaata personnes ñoo ci desoon boobu ñi ma àndaloon man rek maa si desoon ah, maanaam ñi nga àndaloon ñëpp gaañu leen ba mu des yow man rek maa si desoon léegi ginnaaw bi nga xamee ni yow nee ci deuxième voyage bi nga xam ni deuxième voyage bi nga xam ni marine Maroc bi jël na ko ci nga bokk euh, ginnaaw bi ñu leen jëlee ci deuxième voyage bi ñi ci des ñaata voyage la marine bi defaat pour ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci gaal yi mujjee pour pour ñu mën jeex ñu ma leen a yóbbu. jàpp mu nag moom voyage bi ñu def. Hmm, comme ñaata parce que ñoom ñaari gaal yu ndaw la ñu ah, ñaari gaal yu ñun yoroon ña doon jëlee nit ñi ci gaal euh, ci gaal gu mag gi leen yóbbu ci bi waaw d' accord yow nga yow nga nekk benn nit boo xam ni àndoon nga euh, par exemple cinq personnes nga ko comme ni nga ko waxee wala quatre ngeen cinq la moom ah quatre cinq ngeen woon yéen ñëpp waaw man maa leen sixième woon ah yaa leen sixième woon ngeen déparé fii Touba yow kase nga mujj ci ñëw loolu ban ban travail la defoon ci sa xel maanaam ku ne xam ne ni nga ànd ak ay nit bokk ak ñoom benn koñ ngeen ànd dem tukki nga leen gis ñi gaañu benn benn euh, du ñàkk am na loo xam ni tey dina ko travailler ci sa bopp. ah métti na moom wax parce que man ñëw naa lu yàgg nangu moo a génn. Hmm. commencé génn ak léegi yàqu. d'accord parce que ñoom ñi a àndaloon ñoom samay xarit la. d'accord. wallaay. ndax mën nga ñoo ñëwaatal tey bi leen marinu euh, Maroc bi jëlee ndax amoon na ay jafe-jafe yu ngeen doon jànkonteel ak naar yi ndax ku ne xam na ni naar yi. parfois seen réaction day xaw a doy waar ndax indi luñ leen woon benn jafe-jafe pour mën leen a delloowaat kenn ku nekk fa nga jógee woon. non naari moom bi ñu jëlee ba yóbbuñu. Hmm. amuñu fa woon jafe-jafe waaye comme ça bi ni ñibbisi bi ndikkee ba mu ren. Hmm. ci leen amoon jafe hmm. ñoo ñëwaatal ci jafe bi ngeen am Mauritanie lan la woon ban jafe-jafe ngeen amoon Mauritanie. Ah, mu ren dañ fa agsi yaakaar naa sept heures lañ fa agsi. sept heures du matin. sept ñu lekk joxuñu ñu naan. waa Mauritanie. waa Mauritanie ñu bàyyi ñu ci biis yi ñu tegoon daana ay six heures si ngoon. Mm-hmm. si lañ soog a ubbi seen falanteer pour ñun ñu jàll. pour ñun doog a mën a jàll. pour ñu doog a jàll waaw. Mm-hmm. jamono boo xam ne metti woon ci yéen. trop boo wax dëgg ñun ñi ci tane tane bu baax sax bariwul parce que man damaa amoon problème mu tànk sama tànk. moom mm-hmm. ci biis toogaay baax. d'accord ngeen agsi kañ ngeen kañ nga xam ne tey jii yow agsi nga fi nga xam ne moom moo di Sénégal ba war a mën a ñibbisiwaat fi nga xam ne moom nga déparé woon ak bi nga xamee ni tey jii agsi nga fi nga déparé woon ban réaction la ñi nga xam ne ñoom ñoo di dëkkandoo yi wala ñenn ci ñi nga xam ni jàppoon njortoon nañu wala ñu xamoon ni jëloon nga gaal gi yaag say moroom wutale Espagne te yow doo jaay ci tourné bi ma ñëwee sama yaay bi ma gisee dafa jooy parce que ñoom ñu bari dañ leen waxoon ne man damaa indaale wu ma sama xel daal. d'accord bi ma gisee ma ñëwaat ci ay loxoom dafa jot parce que man sama yaay sama papa nekkuñu. Hmm. sama yaay moom kese moo nekk. d'accord loolu moo tax may rey sama bopp te nii li ma daj nii yëpp bu ma gisaatoon gaal bàkki alxuraan damay def. ëpp naa def sëñ bi. billaahi. da nga dund risque yëpp yi nekk ci gaal jafe-jafe yi nga daj yëpp ci gaal tey boo gisaatoon gaal fas yéene ko jëlaat wuteel Espagne. wallaahi. loolu day na waar di. moom moo tax may sonn mais su nekkoon man ak man lekk amul problème. ndeysaan ndeysaan euh, xam naa euh, waxtaan baa ngi bëgg a gudd ñu bàyyi la tey ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi ñi nga xam ne ñoom ñooy jiit yi nga xam ne tey jiit yi ñoom ñoom ñoom la yàlla teg réew mi ci seen loxo tey boo amoon benn message wala leen loo xam ne si da nga leen ko jàllale lu muy doon. a ah, xëy ñoom buñ ñu jàppale hmm. nii di am yëpp du am. Hmm. parce que man am naa permis damay dawal. Hmm. xëy na suñ jox ñu liggéey bu baax. kon ñii di jël gaal gi yëpp duñ dem fii la ñuy toog. Mm-hmm. parce que di liggéey di waaj jege say mbokk dafa neex. Mm-hmm. mais ñàkk solution moo tax nit ñi di jël gaal gi di dem ñii di si dee. Mm-hmm. ñii di ñibbisiwaat. waaw. tey jii nii képp koo xam ni ndaw la comme yow fas yéene jël gaal gi wutali Espagne en tant que koo xam ni jaar nga ci dem ba ñëw boo ko doon jox ay conseil lan lay doon bu defee ñu uh, jeexalee foofu waxtaan man moom du tere kenn. parce que yow mi jug pour dem yow yaa xam li tax ngay dem. Hmm, yaa nga dem waaw yow yaa xam jafe-jafe bi ngay dund ba bëgg a dem si gaal yi. dëgg la nag képp ku amul lu gën a rek yaakaar naa doo jël gaal. Hmm. man mii ko jël su ma lu ma gënal du ko jël. dëgg la ba tey ñàkk am lu ma gënal moo tax su ma ko gisaatee ma dem. Hmm. waaw. jërëjëf euh, sëriñ bi euh, euh, ñu amoon ko fii tey mu nekk koo xam ne tey jëloon na li nga xam ne moo di gaal gi wutali fa nga xam ne moo di Espagne ngir dàq li xam ne mooy wërsëgam ngir ñàkk yaakaar wala euh, saa seetaan gi nga xam ne jàpp nañ ni seen seen autorité seetaan nañ leen ko ba tey ñu ñëwoon fii euh, fas yéene waxtaan ak moom kon internet yi ñu jox leen dig daje ci beneen yoon ba beneen jotaay jërë ngeen jëf.